out. asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi seetaan seen télévision Walf TV.

di Ousan Dekou ngi nuyu lu bare bare may am mbégte di àndaat ak moom ci li nga xam ne rek moo di seen émission Nepad musical kooku moo di góoru njiraan caare kooku mooy kan kooku moo di Sanjoogu Meng Meng Mboor nuyu naa la ziar la Eh, alhamdulilahi rabbil alamin ginnaaw bi ne sant yàlla julli ci yonent bi nga xam sunu wajur ñu ngi am bég ca contente bu baax ci lu nga xamante ne bi moom la def nii suka ngi daal di bégal ñu nga xamante ne bi noonu la téléspectateur lu nga xamante ne bi noonu seetaan fépp fu nga xamante ni foofu la doomu adama maa ngi nuyu Sénégal di nuyu Afrique di nuyu nëpp lu nga xamante ne bi nu nga nuy teewlu ak fu waay bu na nekk mais aussi tamit mënu ma fàtte Ramatoulaye Sall madame Diop di ko nuyu ci taxawaayam bu rafet ak El Hadj ak ku nga xam ne mooy Ousin Deco di ko nuyu di am seen mbégte ak kontaante faire tous les atouts de notre côté pour faire émerger cette émission pour faire émerger le le pour faire émerger la télévision Walfadjri di nuyu bu baax nu nga ko xamante ni mooy Jacques Préla notre réalisateur Jacques Préla Jacques Préla Préla Jacques Préla <laughs> notre réalisateur de toujours ak Aline Diop si taxawaay boo rafet si lu nga xamante ne moom la ñuy wax euh, émission bi mais aussi tamit di nuy René Charles Fall ak Saliou Mbaye mais aussi di nuyu Papis Mbaye euh, ak soxnaam ñu ngi ñuy seetaan si jamono bu nu toll nii. Mm-hmm. ku nga xam ne moom la ñuy wax Aram Aram ñu ngi lay. nante aussi di nuyu ñëpp di wax ne mm-hmm. maa ngi lay nuyu. ma ngi lay fay maa ngi lay nuyu. sant yàlla macha allah maa <laughs> gis nga nii ma présenté émission bi nii commencement. mais xoolal keneen ku ko fi def ñu <laughs> ne àq la. yow daal yow la yow lu la neex de. doo xoolal gis nga. Eh, ñu doo xoolal dañu yor esthétique spécial. muy lan comédie ko wax. muy comédie. comédie esthétique spécial gis nga xoolal non su ko comédien daf xam nga keroog nee dafa neex. Ah. gis nga lu neex waaye mais su lu neex. comédie waaye comédie moo neex <laughs> xam nga damay def di waay xam nga ko yow man ñemewu ndax la ñemewu ma ko <laughs> léegi say tànk laay jaar saa loo def ma def ko léegi ñun nañu reewantu reewantu jógal jógal ñu reewantu léegi nii def Sidi bàyyi nañ <laughs> nas ko bab dala dañ koy merengue Sidi Lamine bàyyi nañ Sidi Sidi Sidi Sidi Sidi. Ñaskala Abdala. Sidi yoo Sidi. doomu soxna si. Sidi Sidi. alaaji alaaji. ay bay tey sàn. bàyyi nga. suka. ñorew. suka ñorew warew warew. ndeysaan. wuy ñorew. ndeysaan. suka. waaw. ñoko. suka ndee la. ñoko. yaa ñoo kon réew réew kon ndeysaan kon wak réew <laughs> ah réew kon Bazouga yaa sa xool ba Sénégal ah Sénégal xam ni neex ah Sénégal ah da ngay ñëw de mais suba barka rasulaay suñu ne soo métti war nañ koo seetaat mais jëmi ah mais nu may métier mi métier lan la. métier waaw di di di distraire nit ñi. distraire waaw nit ñi doom nga naan distraire. <laughs> ñu am pour la ñëpp toog seen kër toog di regarder sa télé moom di regarder la télévision. toog di xool ñaar ñu kan na su taxaw. ñaar ñaar ñaar kan na su ñaar ñu kan na su man ak yow. man mii. <laughs> yow su gaa. <laughs> bi nga ñëwee Walf. ñu àndaloo ak maa seeti nga de. man li man boobu nga waroon a xam ni yow. compétence zéro su gaa yow boo ko war a dàngu ne yow amoo yow xoolal yow da nga avoué amoo compétence. ndax yow mi ma boole. ah waaw ndax yow boole. waaw kon amoo benn compétence. non compétence con. mais yow xoolal ah, luy lan mooy sa compétence. ñu doon ko gis léegi ne. Hmm? léegi gis ko. ree mooy sa compétence léegi ci beneen anam. ree beneen anam. yow ree beneen feem. xam nga c'est que bi moo lay wan ne la yow jëlee wuñ la xam-xam. kon lu ma indi woon rek bañ lañ la jëlee bañ. Eh, reetaana maa ñu jox la dara. boo boo jaalee ñu dàq la. yàlla na ma yàlla musa si yow. yow nga def nga defe ne la yow yow ree la jële de sa place ree la. saa yàlla boo wut boros di borosu. defar sa bëñ ba mu normal dëgër bés booy jaal ñu lay dàq. si di danaan jaal na jaal na jaal kon sa kon votre contrat dans moo ci nekk dans. 32 dans signé. boo juumee ba jàll ñu daal la mu yaay woy man nag sama contrat kon moo ci nekk <laughs> léegi lu dafa saas kon ee ramas ee ñu ngi nuyu Ouzin Deco di rafetlu bu baax liggéeyam bu rafet euh, ci li nga xam ne mooy e mm-hmm. euh, ci ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ciy jàpp kon dafa mel ni euh, jamono juñ toll nii. Hmm. Euh, jeu bi nga xam ne moom la ñuy def. Euh, mu di li nga xam ne Matel Oumy Ndour ak Bijou. ñoom hmm. ñett ñoo ci des. Hmm. ñu éliminé waat. kenn xam ni amoo mbokk. ci ñett ñooñu. <laughs> wala ku ci gën a ne mbokk yow yaay dem Ardo. waa sa sa mbokk moomu da nga ko xam. kan Moustapha Meng. maire maire kii Kër Masar. <laughs> Ah, xaw ma ko mais dafa ñëw di auditer gars yi. waaw <laughs> <laughs> xoolal dafa ñëw di audité gars yi xam nga mairie bi fa nekkoon jaayum suuf ya fa nekk gars yi ne délégation spéciale nañ ko indi <laughs> sama doom baay sama <laughs> doom baay la dama bëgg audité gars yi càmbar mairie bi fa jóge waaw la mairie bi fa jógee rek dégg naa mairie bi centimètre lañ yoroon di tracé nan lan angal bi ba angal bële di ko ko moom ñu rëdd waa ji nag dafa ñëw jël mairie bi nag de suuf sépp lay càmbar rek. sama ndey gars yi nag délégation spéciale. yow seetaanoo élément bi ndax maa réew mi bëgg a dee ma ne waa délégation spéciale moom teel na di <laughs> ma ne gars yi méngaag leen di bëgg a yóbbu ardo <laughs> ma di ñuy ñëpp. Ah. suka. waaw ah, ça. ñu daa ñëw ci li nga xam ne moom la ñuy wax. sunu sommaire. El Hadj Thiam Ndiaye ak ki nga xam ne moom la ñuy wax Ramatulaye Sall madame Diop. madame Diop kër la sommaire. la. njóogu mais bu ma ko rëccee ba wax ngeen gaaw ma fay jëlee mu gën ngeen may gàccaal bàyyi ko fi indil ma ko indil ma très bien ça <laughs> fës ci seen émission nepad musical bokk na ci dalal gi ñu dalal président Macky Sall ak soxna si. ginnaaw bi sa Seck demee jébbalu ji Marième Faye woo na ki nga xamante ni bii kat moom la ñuy wax njiitu réew mi di président Macky Sall ne ko lakkal dem jébbalu ji yow it tamit ngir gën a yeesalaat sa njébbal loolu lépp dana leer ci seen émission nepad musical. Moustapha Cissé Lo mi yëkkati ay kaddu daal day xam ne kat nañ dàq ñi nga xam ni ñooy waa parti socialiste lan moo tax mu wax la ne mel loolu lépp dana ci indi ay leeral. ma ngay woo liggéeykat ya kenn par kenn nee na mbirum numérique da ko jommal jaaxal na ko ba tax na daal moom daal da ciy génn ba set ci wecc moom El Hadj Ndiaye te nee na ma ngay tëj télé ba ma ngay woo employé di wax ak ñoom. El Hadj Sidi Lamine Niass. moom mbirum numérique xam na ko wala xamu ko wala maîtriser na ko wala maîtriser wu ko loolu lépp El Hadj Sidi Lamine Niass dana ca indi ay leeral. revue de presse ak Yaya Jammeh. kon su ka leer. mu nekkoon li nga xam ne rek moo di sunu semaine boobu la ñu nii képp ki nga xam ne rek instant bi ñu toll yaa ngi ñuy bàyyi xel nuyu neen la El Hadj Cheikh ngi lu bare bare ak Ousin Deko ak nga xam ne rek moo di Ramatoulaye madame Diop di wax ni que nit kii da ngay def nànk des fois nit da ngay def nànk mais boo toogee mu neex rek nga commencé naan ratatatata saa njoogu moom moo nit ñi saa boo toogee naan bu la neex wax tey nag moom tey yaa moomoo ñu lay meng mboor <coughs> gis nga sukaa langue du dara lu de communication su ma nee la sommaire nit ñi xam nañ li ma bëgg a wax <laughs> moog lu sommaire benn la rek yaa ngi dégg diggante laa ak la loolu boo ci juumee. Mm. jarut ñuy jéem a ñëw di def ay affaire technique di la jéem a xëcc di la zoom. ay affaire de faute de frappe parce bu ngeen di zoom nit bu waxee jaroole mën ngeen ko zoom. Mm. di def erreur bu ndaw ngeen xëcc ko di ko wane ah, di ko jéem a doya daal. loolu c'est pas bien di nuyu ñu naan caale madame Mbeng soxna Mbeng Ndey Fatou Thiaw soxna Diop ajaratu Penda Diallo Gueye alaaji Adama Gueye di am ci ñoom mbégte kontante Diop si mon ami mon frère di am ci moom mbégte kontante di nuyu Serigne Abdou Mangane ak Fatima madame Mangane ak Sadio madame Mangane mais aussi mënu ma fàtte Keba Kanté mon ami mon frère ak ka nga xam ne moom la ñuy wax ambulance di nuyu Serigne As Njegen mënuma fàtte tamit sukaa ki nga xamante ni kii eh, moom lañu naan bay Tyson ma ca lal ba yaakaar a nekk roi des arènes mm. ca lal ba xanaa arène bàyyi lal ba ci sama papa ne na nga ko ciy di nuyu sama papa alaaji Mamoun Mbaye di am ci moom mbégte kontaante dëkk ca Thiès di wax ne ko maa ngi koy nuyu bu baax di am ci moom mbégte kontaante père Mamour ñu ngi lay nuyu voilà di nuyu tamit sukaa mm. Sénégal gi yëpp fu mm. mën a nekk ñu ngi am ci ñëpp mbégte ak kontante ak fu waay mën a ne. Mm. di nuyu alkaati yi. Mm. Noa Koli parcelle ak ki nga xam ne mooy san Diouf. Seyni Ndiaye. Mm. ca central ak Badiane di am ci ñoom ñëpp mbégte kontante gos droite di gauche voilà suga. ça. <laughs> vraiment suga nuyu nañu ba pare ah. léegi lu ñuy def. Euh, duñu laaj ci clip. clip la laaj. clip la ñuy laaj wala lan. ah lu neex rek. clip nan lañ koy waxee ci indo. Euh, wala la lu la ci neex rek. yow bu fekkee laax nga wax ko de. man xaw ma de mënuma ko wax dëgg yaa yow nag léegi yow laay laaj nan koy nan lañ koy waxee ci espagnol. su gaa xamoon nu ñuy waxee clip ci indo. xaw ma ko. yow clip xamoon nu ñuy waxee clip ci anglais. yow ñu koy waxee yow. xamoon nu ñuy waxee clip ci français. ñun yow nu koy waxee. français clip. léegi yow indo. <laughs> voilà xam nga Seck dama la bëgg a wax ne. de inde bi rek laa lay laaj dama lay laaj inde bi. Euh, su ka man vraiment yàlla dafa dogal je maîtrise vingt sept langues sauf comme la nag français rek laa maîtriser wul mais maîtriser naa vingt sept langues. comme ban. man damay làkk portugais. Euh, ban lu nu koy waxee damay làkk espagnol. allahu akbar. damay lakk chinois. Ah! damay làkk grec. saa wàññi ko. yaa ngi dégg saa wàññi mbir mi damay làkk indo. yaa ngi dégg damay làkk yaa ngi dégg li may wax nii am na ñuy taxaw naan astafurlaa. ma di ma euh, jéem a critiquer ah man wax xam nga mais gis nga. exem exem su yaa bul ma waxati exem exem mel ni ku nekk émission bébé Walf c'est exem léegi saa gën nga yow yooyu yëpp mën nga ko wax ko waaw léegi yow lakkal wax ko ci endo parce que exem ah, ay affaire yu jàmm ah, eh, na exem exem mula ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo oyina ngo uyajang mais yu woo aay mais yu ni muy fay ak mooy yaa amu fi ni muy daw nga mais mais kaay ba te nag émission yu bi dafa nekk émission boo xam ni dafa am lu am solo muy lan di féliciter Thiaba Dramé ak waa Yoor Yoor ak Baara ak toute l'équipe de Yoor Yoor ci jaroore ji nga xam ne def nañ ko muy ki toog huit ans ñëwul seen kër woo ndeysaan gisut kiyam mu daal di koy génne vraiment Thiaba félicitations et toute l'équipe de Yoor Yoor ki nga xam ne mooy Baara seen liggéey bu rafet boobu mu mel na ni yéen suba gi nekku leen fi rek di nelaw nekk fi aka onk parce que nag fii nag fii parce que émission boo xamante bi ña koy def ña ngay onk mm. mooy wane ne naqaran fa macha allah <laughs> ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu ca ba tuba ko rombee da ngay defe ne matandike la émission bu ñu koy enregistré naan fii xanaa matandike fi nekk <laughs> Ramatoulaye madame Diop may ñu somel ma grande may ñu somel lépp loolu ni jox yow jërëjëf yow moom yow du la wax dara dama waram doon may clip El francs pour équiper votre maison, mais aussi des scooters, des tablettes et des smartphones, des moutons, des télécrans plats, des gazinières et des bazins. Pour jouer, 3 couvercles de grammes ou un couvercle de Sofia 1 kg. Postez-les ou déposez-les à la Sofiette, ce BP Dakar ou chez vos grossistes. Des cadeaux comme ça, c'est Sophia. ah ñu ngi am mbégte ak kontante di nuyu bu baax euh, mère Dieynaba Fall di am ci moom mbégte kontante ak képp koo xamante ni kii yaa ñuy teewlu di gaynde mm-hmm. waalo gi euh, mais su kaa di gërëm di wax ne euh, Idrissa Seck daa jébbul dafa jëm jébbulu ji Marème nag nga xam ne day mm. jàppale jëkkëram mm. am na loo xam ne bi nar na koo wax ki nga xam ne mooy la président Macky Sall kon nag ñu daa dee xool Marème Faye bi nga xam ne Idrissa sekk dem na jébbalu ji Marème Faye nan la doxalee. xam nga dëgg yàlla idi dem na ba ñëw waaye nag xaaral ma woo léegi sama monsieur Macky Macky waaw Macky Sall. waaw monsieur le président. waaw ñëwal yoo xam déggoom bi ma lay woo. da taxal maa ngi si dossier kii bi. nu mu. Eh, eh, eh, waaw ñëwal bala ngaa nekk ci dossier ñëwal. maa ngi ci affaire waaw. yow doo gaaw ma la woowee doo gaawantu. waaw. lan la maa ngi nekkoon si affaire dossier. pour càmbar affaire Ebola lii lépp waxuma ko. Hmm. yow xanaa yëgoo li xew. lu xew. Idrissa Seck yëg na li mu def. mais lan la def sori. xamoo li mu def. non mais nu ma ko. dafa dem Touba jébalu ci yëg nga loolu. waaw mais demoon naa. demoon nga. waaw damaa bëgg nga dellu. ma demaat. damaa bëgg nga dellu askan wi yëpp Sénégal gépp nga xam ni demoon nga fi nga xam ne dem nga Touba loolu laa bëgg damaa bëgg nga yeesalaat sa njëbbal dégg nga loolu te bu ma la ko waxaat nag du dégg nga li ma la wax. d'accord di nga ko def wala doo ko def. waaw dinaa ko def. de nga foo jëm. Touba. loo fay wuti. jëblu ñooy àndal pour ñëpp xam ko. waxal bu ma dégg RTS laay kon jeex na bu ma la bu ma di nga wax waxal di ngay wax maa ngi def oh soxna si man demoon naa quand même man nag ndigalu soxna si su xasee ba wax amatul leneen wool te wootal léegi allo Racine Talla Macky Sall dama wax ni pour nga envoyé ma benn équipe pour ma dem Touba dama kii Touba pour jobluwaat eh gannaaw ma xam ni demoon naa alors léegi loo si bëggoon du n'est-ce yëg naa ni demoon na da du man maa fa demoon encore ànd ak équipe bi waaw damay delluwaat. il faut ma delluwaat daal gën a yeesalaat njëbal gën ko dëgëral waaw waaw envoyé ma équipe bi rek ñoo xam ni pare nañ euh, pour lépp lu nga xamante ni bi lu am solo la ma daal di si taxaw waaw d'accord ma ne ma ne Racine Racine Racine déglu ma envoyé ma toute l'équipe de kii bu defee nga xam ne ñu ay si reportage yi voilà c'est bon envoyé ma toute l'équipe de RTS ay direct kii yeeg yooyu yëpp équipe pour ñu def ko en direct sax pour ñu jébbalu ko direct si télévision bi def leen annonce yeeg tout ça voilà merci ok Idrissa Seck sonal na ma quoi day def ay njëbaru communication yii te xam naa lum si jublu ba moom soxna si du comprendre yooyu xam naa affaire yi nga xam ne moom la Idriss Seck di def ku mu war a waat sax allo Farba Ngom Macky waaw waa dama ne bon il faut nga yow rapidement parce que dama war a delluwaat pour jeesalaat su ma njëbal pour gën a waree si lu nga xam ne si la nekk parce que sa Seck mu ngi bëgg a gañ communication bi te dinaa ko wan na ko gënuma doon taalube mu si loolu na jabalul tub te bëgg Bàmba si loolu lay taxaw te si lay dox loolu mooy lu nga xam ne mooy lu si ëpp solo waaw waxtaan naa seeg waaw looy laaj naan waxtaan naa seeg soxna si du xalaatam la alors yow doo yem si place géwél waaw lam toor arwaar bur gëne waaw <laughs> loolu nga wax noonu neex na si xool voilà ok merci il ma wut sax cours commencé di dóoru loolu dafay ñu xam ne président Macky Sall dafa jabalu war ba tugu doon Baye Fall Serigne Touba Macky Sall ne jabalu tëb te bëgg Bamba naa wut cours parce que loolu c'est très important dossier Ebola yi yëpp jërëjëf Serigne Touba mu nekkoon li nga xam ne rek euh, moo di euh, tendance yi giseen ñoo ko gisandoo di ko doon comme mu nekkoon ki nga xam ne rek moo di monsieur le président Macky Sall ànd ceeg ki nga xam ne rek moom moo di soxna si kon ñu dadi ànd ak moom ko ko ànd ak moom kooku moo di kan kooku moo di Moustapha Cissé Lo euh, soppay Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul di gone ak Touba gi Moustapha Cissé Lo i Moustapha léegi bu la woowee da nga yéex allah <coughs> doon daam asalaamualeykum maaleykum salaam maa ngi lay nuyu di nuyu njabootu sëriñ Tuuba gi ah, di wax Seex Sidi Muxtaar yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ak njabootu sëriñtu Tuuba gi yëpp mhm. parce il faut ma dal parce wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañ ma wax jotuma mhm. wax jooyaat ñu ne looy jooy dañ ma wax ma passé donc man léegi sama communication dama ko teg ci bin bin bin bin tuuti tendance rëjëgin si la ko teg donc sama lépp ci communication boobu la teg. ana sama kii ki ma bëggoon may foofu sa doom jile Moustapha Cissé Junior amin ci jàmm dama lay mujj may sama géwélu juddu maas maas moom laa lay may waaw baax na ba tey <laughs> waaw Moustapha waa PS dégg maa ngi lay dégg lu tax nga bëgg ñu dàq waa PS te nu jàppale leen ba ngeen ñëm fii eh, li nga xam ni moo tax ma ne nañu dàq waa PS mm. parce que dañu commencé defaru le fait que ñu commencé di defaru loolu baaxul pour parti APR c'est pour cette raison ma def une proposition intelligente wax le président Macky xamal ko ne ko sunuy adversaire potentiel c'est pas le mais c'est le Parti socialiste actuellement il est en d'émerger waa PS parce que lan moo tax ñuy émerger mhm. élection locale yi wane na mbër muy Khalifa Sall ah, Khalifa Sall la dëgg la ni adversaire potentiel la pour 2017 donc le président Macky bu nelawee mhm. xalifa ci kawam. kon yow yaa yéen a ngi bàyyi xel xalifa day lang day def ndey mais c'est pas lui le parti socialiste. Hmm. candidat c'est Khalifa Ababacar Sall. moo nar doon candidat parti socialiste. il faut nit ki mën a liir entre les lignes. parce que dafa demal boppam pour mairie bu Ndakaaru Mm-hmm. ànd ak force coalition duma soxna Mimi Touré ca Grand Yoff mm-hmm. da ko wulli wulli waat ko mm. wulleeti ko duma ko duma yu wet ba kenn déggatul Mimi mm. loolu ça que Ousmane Tanor par contre ngeeñeen sax gàñeetu fa mm. loolu mooy wane ni Khalifa moo nar nekk candidat parti socialiste donc ma mhm. Macky deful attention dana ko duma ah. astafurla euh, monsieur astafurla euh, Moustapha nga ni bu Macky deful nànk euh, astafurla dañ koy répété waat dana ko gañe gañ 2017 kan moo koy gañe Macky maa ngi jéggulu article 80 gañe Ah, dama juum gagné mm. Mimi la duma day gagné Macky mm. point final <laughs> point final eh, dégg nan ko yaakaar naa ni leer na bu fekkee eh, tamit askan wi tamit dañoo am li nga xam ne rek moo di seen suggestion bu fekkee am na ku nekk ci ligne bi 88 628 99 99 114 allo allo asalaamaaleykum maaleykum salaam waaw soxna su ko am maa ngi lay nuyu eh, ñu ngi lay fay sëñ bi ah sama dëkku maam waa yooyu. dëgg la ah wax nga dëgg maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mbokk. waaw man daal fii sa yow bi nga dee nga am tabax kër mbaaj gi yaa ngi nii kër gi nga fiy tabax boobu ba nëgëri. Mhm. Mhm. xuloo rek nga fi nekkee dama ko bëgg a askan wi yëpp nag ngeen ñu xam ko. merci jërëjëf nga sa oto bi dee nga am fii nga koy gaare. Mhm. jël béton bi dee nga ak muul yi di ko def nu la neex di ko galan ci kër gi kii ak yooyu. saa sareet dee nga am bu ma ko yoree war a ah naqari ngaa dëkkal xam nga enregistré nañ la nga génn Touba. waaw danañ la enregistré waat ñun waa Kër Mbaari ngir nga génn Mbaari gi. Ah. loolu ñoo ko wax danañ ko def incha allah. jërëjëf dégg nga ko euh, jërëjëf leer na. soxna si mm. dégg nga ko a ah, dégg na leer na kay. nee na woon nañ ma ma génn Touba. dinañ la enregistré waat dinañ waat. ndax da ngaa naqaree kuy wax la ñuy. enregistré déedéet ndax da ngaa naqaree dëkkal. xanaa kuy wax. doo wax kon. kon ma fuuy ma wan la. kon comment. soxna si. <laughs> yaa yaay de li def yaa ngi dem jërëjëf loo lii de metti na dootoo waxati ba jël loo tax sa gémmiñ gi noonu loo ndaam loo ndaam siré te ñëpp xam naa wax ma tubarkàlla madame Diop chéri Chibori bu ma jógee ci alpha kii noonu jox ah jox ma dara lu bokk